naa la dóor la la 24 décembre naa la dóor ba ngay bëgg a dee. ma la mere fii ne ma mbay ku jaatoo digal la fii may def sama vidéo mu ne sa yoon nekkul si sala sala xaw séeréer imaan la sama yo nekkul si moom. comprendre nga li ma ko mere barki Serigne Touba Lamine yéen ñi teg yëpp barki Rasul lay xam nga matti na ma xool. Ah, le 24 léegi dafa dafa xoteeg ah xam na ma xam nga matti na ma barki Serigne Touba barki Alxuraan kay dama koy rey le 24 naa ko dóor ba muy bëgg dee. le 24 la 24 naa ko dóor muy bëgg a dee mu la 24 naa ko dóor mu ngi bëgg a dee. ma si kii samay fans samay ñëpp si stade bi tel tel stade bi. waaw kon dëgg la da xam nga ni mat la ma xool. dafa tere programme xam man Ouzin man Ouzin man Ouzin ni duma bett du ko la bett la. waaw mais Kouthia bés baa dinaa téegal ndayam nagam eh! waaw mais Kouthia bés bi dinaa téegal ndayam bam nagam mais Kouthia damaa soow xam naa dafa xam naa daa préparé pour daanu man soow man mun maa daanal waaw tey sayuma lu koy bu bis ba bu bis ba. le 24 décembre di nga xam lépp dëgg la. le 24 dina la dóor ba ngay bëgg a dee barke Rasulaay barke alxuraan la 24 dina la dóor ba ngay bëgg a dee. Jamaïcain Jamaïcain Jamaïcain Jamaïcain gis nga li nga def Jamaïcain yaa ko tëgg. li ma siy wax. bëriwul Jamaïcain yaa ngi nii. mais attends Jamaïcain moo ko tëgg Jamaïcain li nga tëgg lan la. déedéet Jamaïcain li nga tëgg lan la. non non non yàgg naa ak coow waaye combat bi dépassé na ma. waaw ah, combat bi moom instant yi génn seeganti guddi ndax combat bi fin gii moom lii mosuma ko gis ci lamb mosuma tiit tey tiit naa waaw ndax combat bu pare gu ñuy sànniwante di mattante nar a rayante mosuma gis lii ci réew mi. mais sponsor bi bu day day dawloo sponsor bi fii fi yàq ci ay parfum kenn xamul nu mu toll. wala man mii man su may waxee ak yow ndax xoolal xoolal mbay. waaw dara tiit. may leen ndax yaram mais kii li ma si Jamaïcain sa xel dina dal sponsor yi ñëw leen combat bi di yomb parce que naa ko dóor barki Serigne Touba li ma waxal si kaw àdduna bon yëpp yéen a ngi di dem ci ndax yëf yi xajatul fii dañ dem ci biti ñu xool Mbaye Kouthia ak Ouzin combat bi daa teel a tàmbali combat bi daa teel a tàmbali Ousseyn xaaral Ousseyn xaaral Ousseyn Ousseyn xaaral Ousseyn mbay neen da nga koo maat Ousseyn mbay neen da nga koo maat. mooy ma may ku caa. non mbay neen da nga koo maat. Oh, man ma ko dama kaa xam dama ko maat. xam nga loolu fii loo bett mën la. Ah. may ku caa da nga ànd ay nit ñu programme bi pour nga sotti ma soow. ñan la àndal. ñu ma ànd bëri na. wuy ma wuy ma wuy ma ma ma maas ma ma mele ma. may ku caa. ñan la àndal da nga maa sotti soow. Eh, de lu ma jaaxal ma promoteur bi. daf man dafa faral mbay eh! ndax yow yaa dem yaa noo bokkoñ maa parcelle ah. yow yaa jënd soo jox mbay pour mbay daf ma ko waa mbay li ma la li ma la mayaale boobu doo dafa jox dafa jënd mbay soow wante mbay yóbbaale boobu ah. waaw mbay promoteur bi moo lay xeex bakki Seydina Mouhamed bakki laa ilaaha illallaah ah. bakki Mouhamed bakki Mouhamed bakki Seydina Mbaye dinaa ko doo dinaa ko daan atum waaye làmb ji teel naa neex di jàpp leen maye ngay daw maye ngay daw eh Ouzin topp na mbay maye ngay daw mbay teel ngaa daw de mbay nee na ñu jàpp ko nga mbay nga de. barke Serigne Touba ci lay lamb ji dina yegg dinaa ko dina dina yegg a da lamb dama a daw barke Serigne Touba non barke bàyyi bu ñëw ni mu ko meree dafa eh, bay bay déet bay day sottee day sangu day sangu oh Ouzin ngay sangu Ouzin teel naa sangu di waaye laamu ji naa sangu di Ouzin teel na Jamaïque Lamine Lamine Jamaïque moo fi indi ne Lamine Lamine waxal ak Jamaïque xeesal kat la dinaa ko dóor li ma ko mere yëpp dafa la dem France defal ma lu mu ah, lu bon lu nekk lu may mbay góor jigéen la mbay bett naa ko fii mbay mett naa ko fii ah barki dee mu ma def na sax sa ma def sama vidéo <laughs> barki Rasulaay muy wax lu nekk li ma la mere xamoon sax li ma la mere jaw yike wuy ma wuy ma wuy ma ma funtoon mbay maka daana instant do do do du am combat bi bés baa kenn eh, kenn mënu ñëw mbay duma ma wax dara waxal lu neex ne nga ma la laa merci ko wante mbay man Ouzin Ndiaye waxu ma waxoon lat man Ouzin Ndiaye kenn musuma bett may def ñàkk fayda kenn musuma bett may def ñàkk fayda man Keita dix ans pratiquement si aar bi macha allah tax fu ne taxoon naa fa dama dama mun bés dama xam ne Touba laa jugee damaa jugee ci ci ci feebar dama def accident ma ma man di wax sa benn tànk bi. daa gaañu. Hmm. ak li nga fi def lépp. waaw non léegi arbitre suuf la na Mbaye Kouthia Ougousin. bu boobaa boobaa dëkk bi dina yëngu. kon rendez-vous le 24 décembre. maa ngi def ñëpp rendez-vous le 24 décembre avant. mobilisation bi stade bi. waaw stade bi moom sama kër laa jógee. waa Parcelles. waa Yoff. waa Almadi waa ñëpp. waaw macha allah. ah Mbaye bu daaw Mbaye foo jëm bu daaw man songu ma naan ak. Mbaye waaw ndeysaan Mbaye daa teel a. waaw nuyonte leen. ndeysaan di nuyu sénégalais yëpp. la 24 décembre nañu ñëw indi di di ñu woo ñëpp Baye Ndiaye di woo ñëpp di woo Cheikh Produit di woo ñoom ma sama journal yëpp samay xarit ak Pape waaw ak Omaro di woo Omaro Omaro sama waaw kay di woo Omaro maa ngi woo ñëpp di nuyu samay fans ah? man Omaro kan lay indi jéem ah? maa wax Baye Ndiaye maa wax Aziz Ndiaye amoo nit amoo dara waaw kay ak Matar suba teel. waaw ak Rasul Matar suba teel dama xarit la yow koy woo. Ilimane Lam maa koy woo Serigne Sala fexeel ba woo say nit yow amoon nit yow amoon ñëw. waaw kay bàyyi ko mu woote moom ñëpp ko bàyyi. amul mbay bàyyi mu woote mbay Kouthia mbay Kouthia bu ma yëngal. maam boo jaaw maa koy woo mbay Kouthia mbay Kouthia nee na dégg nga xul la neex. waaw xam naa tey ñëpp ñëpp yow tey yow nañu àndal. waaw xam nga xam nga fu mu doon lu bett mën la dama dama Ouzin Keita da man euh, man gaynde laa hmm. ma xasee ŋànk tànk yàbbuma tànk daggul man du ma bàyyi lépp nag lépp nag surprise lay doon. du wax waaw c'est lépp surprise la sama année surprise la da damay Kouthia. mais lu tax nga ne Mbaye ñëpp moom lañ waa gis naa ngeen def xam mbokk mag xam nga xam Mbaye Kouthia kenn xam comédien la kenn xam wéykat la kenn xam lu mu doon. Euh, garaawul a garaaw Mbaye Kouthia. Mbaye Kouthia ba desamul Mbaye Kouthia ngay woo ñan ngay man maa ngi woo samay nit. samay nit ñi nga xam ne ni may ni dafa te yàlla tax. waaw te bëgguñu bëgguñu ñu ma wax ko. Ah. bis baa hmm. Mbaye Kouthia dina xam lépp dëgg la hmm. bis baa nga xam man gaynde laa hmm. da Mbaye Kouthia bis baa Mbaye Kouthia du ma gis te ba may song Mbaye Kouthia du gis bàkki boo du ma gis Ouzin nu mu demee noonu man bambara laa nag waaw mais attends nu mu demee noonu waaw non bambara si eh, mais Ouzin Ouzin mbay neen mbay neen la ko matt fa mu dagg de dama kaa matt xam ma matt ko la nga matt xam ma matt ko mbay bu ma ko mattoon du ma jóg na isanto soomi soo boobu ba ma turee soome. Ah. foofu daf lay tax. Ah. demu nga. waaw foofu daf lay tax. yow lii affaire demu yi nga defee. xool lii xool lii foofu nag boo xam ne. xool lii xool lii waaw xool lii boo xam ne mën naa yëngu. déedéet waay mbay eh, eh, bu wax dëmm. mbay bu wax dëmm. mbay mbay arrière na. mbay arrière na mbay arrière na. mais aussi da nga napp mbay. xam nga bu ko napp. Eh, ma xam ma xamante loolu. mais ko daal ma ko dama koy bàyyi mu def ay façon. waaw bu ñaan yàlla bu ñaan yàlla song ma mais Mbaye est-ce que di nga songu Ousseyn bu bis ba. wala 24. incha allah mu ne bul wax dëmm nga daw. non wala 24 non dama xam ne fii signé euh, lancement. moo ñu fekk suñu contrat. comme la teel a daw. non non dama koy xaar comme ça daan naa ko 4 hmm. appui. ah des na ay yeneen 4 appui. ah premier round dama ko dóor ba mu ba mu génn stade bi. bi fu mu jógee. soo damaa xam ne. te du ay rabam soow la bañ kay moo tax ma xëpp ko soow. mais Mbaye Ousseyn est-ce que la mine Dieu arène nationale ah. Ousseyn est-ce que gënul laa mën géew arène nationale. xam nga soo bëri arène am na ay tàkkusaan. waaw man am na su dul woon kaani bi ma xëpp du daan du ah, daan. Pawlish dana xëppul kaani te man man la jox drapeau kon yaa amoon ndam. waaw man daanu. comprendre mu song ma. day duule ko eh. comment kan la ko jox non non léegi xam nga mbay mbay xaaral Ousseyn dañ koy yemale fi ndax bu ngeen waxee lépp du